cirë ngeen jëf coronavirus baa ngi mel ni fitu gumbar sànni ci réew mi soleil national nañu rawatina ci week-end bi ñu génn mu di démb ak bërki démb ubbil yéenekaay bi li corona ci samedi ji ak ci dimanche bi journal bi nee nañu bu ñu leen boolee ñi ngi toll ci ñetti junniy doomi aadama ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett fukki doomi aadama ak benn feebar bi faat leen ak fukki cas garaaw ak benn lépp ci week bi Vox Populi nañu scénario catastrophe cas covid 19 yëg ni ñu tasaaroo ci réew mi jéggi nañu dayo 1366 cas ak 5 décès ci samedi ji 1722 cas ak 6 décès ci dimanche ji journal l'info nañu suñum réew di Sénégal mi ngi cogandaay ci tooke lu mag ne cas coronavirus yi nga xam ne bés bu yàlla sàkk dañu leen doon wàññi yëf ya dafa gën di yokku di yéenekaay bi di ko misaal ne bu fekkonte ne bés bu nekk benn kaa la ñuy wàññi léegi ñoo ngi ci juróom kaa garaaw it bu doon benn la am par bés léegi ñoo ngi ci ñaar ci juróom benn région la ñu doon dégg wopp ji waaye léegi ñoo ngi koy dégg ci fukki région ak ñaar yaara ngi yoo xam ne l'observateur ne nañu bu ñu àndee du jur jàmm mu di coronavirus bi ak si buru bi professeur Daouda Ndiaye bokk ci comité scientifique bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di ñu wax ci l'observateur ne ñaar yi mu di covid 19 bi ak paludisme bi bu ñu dajee ci moom directeur centre africain d'excellence sur la génomique des maladies infectieuses chef service laboratoire parasitologie ak mycologie bu CHU Dantec bu Ndakaaru nee na yu bari li leen ëlëm jamono ji moo di mbas mi mi ngi fi ak troisième vague bu wexaat ñu jëm ci nawet ku ne nawet ne am ndox ku wax am ndox wax ay yow waxit sibiru te sibiru bi moom rek at mu yàlla sàkk dina faat ci Afrique ak ci sud du Sahara lu mat ñeenti téeméeri junniy nit rawatina jigéen ñu wérul yi ak xale yi amagul juróomi at professeur Daouda Ndiaye ne bu ñuy lijjanti loolee sotteegul mbas mi ak troisième bi ñëw dooleeku ci kuyee bu am dëgg-dëgg mi ngi war a jëm ci tabaski gii jëm nekkaay yi ñoo ngi gën di yokk bés bu yàlla sàkk li muy wund moo di ñoo ngi jëm ci tabaski goo xam ne lu ne mën na caa xew tabaski à haut risque noonee la ko Sud Quotidien binde ci xëtamu njëkk boole ko nag ak i kàddu yu mu nangoo ci docteur Mame Thierno Dieng directeur général bu hôpital principal keroog dimanche ci émission Grand Jury bu rajo Futur Média fa la waxee ne li gën te ñu koy digal ñëpp moo di ñu moytu déplacement yi rawatina di jugee Ndakaaru di dem ci région yi Le Quotidien nañu matuwaay yu ñu jëloon ngir moytu lawal woppi coronavirus ji matuwaay yu ca bari dellusiwaat nañu donte journal bi mi lii xibaar ne masqué wu gi moom mësee su ko fee jëlee li waral ba kilifay réew mi dellu ca dogal ñu jëloon Le Quotidien nee nañu bokk na ci relâchement dig bàyyiliku gu nañu organisation mi nee nañu yasar gi gouvernement bi wane ci troisième gi bëgg koo nekkee ñoom du ñu toog di ko seetaan moo tax taxawal nañu ab task force ngir seet nu ñu mën indee tontu lu wér ci troisième gi ne jasar ci kaw nit ñi tribune nañu variant delta bi ak wàllee gu gaaw gi muy wàlle ak tabaski gii ñu jëm tax na daanaka fii ci réew jiite programme élargi de vaccination moo xëy toog ci xët mu njëkk suur soi ngi waxtaan ak ñoom ci li tax ba kaa coronavirus yi bari ci réew mi ñàkk yi di vaccin yi ak ni ñu manqué ci réew mi ba ci variant delta bi ñuy wax ne ay ñàkk mënul ci moom lu bari docteur Ousseynou Badiane nee na bu njëkk ba bi ñuy wax askan wi ngir ñu dem ñàkku ju ñu bari ci ñoom dañ doon day naagal léegi nag ñëpp bëgg a ñàkku te malheureusement fa ñu ko yittewoo fa la ñàkk yi ñàkkee ne waaye njoxtu mën na cee rafet ndax fii ki fan war nañoo jot ay vaccin Sinopharm ak yu Johnson Johnson ngir wéyal vaccination gi jërë ngeen jëf